hamdi wa sukri liman kulli bi sara law ridan duna suqtin inda sarsara hamdi wa sukri liman kulli bi sara law ridan duna suqtin inda sarsara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk julli mbokk taalibe yi ku gis jotaay bii xam ne dina islam wooteeti na waaye ku gis jotaay bii xam ne moom soxna jaatulaahi mariam wa juru cheikhul xadim bi wooteeti na waaye mu woote muy mbale mi ñuy bale ci poroxaan dëkk moom soxna jaatulaahi mariam ba mbalem poroxaan mi nag sëriñ tubaa cheikh mamadou muntaxa mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg mbàkke te ànd ak wér jàppal na ko waa Kawlax gépp waaye bokk jàppal ko waa Sénégal waaye jàppal ko waa adduna mbalem Porokhane mi kañ la le 10 mars bii di ñëw la ñuy bale ji Porokhane dëkk moom soxna Jaaratullaahi Mariam jox moom du Muntaxa Mbàkke wàcc ci jàmbaru ji jàmbaru Serigne Touba ji jàmbaru Serigne Bassirou ji jàmbaru Cheikh Mouhamadou Muntaxa mu Serigne Moussa Abbas Mbàkke yàlla na fi yàgg Mbàkke tànd gër ñuy woo mbokk julli yi nekk Kaolack yëpp ak li wër Kaolack ak mbokk taalibe bi ci biir réew mépp mbale moomu ñuy bale ji Porokhane dëkku mam soxna Jaaratullaahi Mariam ba di le 10 mars muy dimanche bii di ñëw kon ñoo ngi ci woo mbokk jul yëpp waaye ñoo ngi ciy woo itam mbokk taalibe yi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo beeg ziar bi nag wax dëgg yàlla Cheikh du muntaxaa di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te wér di ñaan Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu lañ koy ñaanee Cheikh Mamadou Moussa mii. rakkam ju baax ji mu faggool muy sëriñ jiili yàlla yàggal leen fi loolu te wér te xam ne ñoom wàcc nañ wax dëgg yàlla ndax liggéey bii nga xam nii moom jël na ko fi mu ko war a jëlee teg ko fi mu ko war a teg bokk kook taalibe yëpp te xam ne ab taalibe dara du ko jariñ loolu mu liggéeyal tu Tuubaa nit mën ta jariñu mukk ci yoonu sëriñ Tuubaa te doonub ab taalibe mu xam ne moom nag taalibe xaadim rasul la waxul sax ay di jëmmi doon sama maam ak yooyu waaye xam ne ne moom taalibe xaadim rasul la mu ànd kook muruti Kawlax yëpp comme ni ko Mbaye Diène wootee waxee ko mànd ko ñëpp di ko liggéey waaye nag lii mu woote tey mooy lan mooy mbalem poroxaan bi mu ko yàggee woote nag yàgg na ndax mi ngi ko commencé woote 2008 yaakaar naa te buñ bala jee ren di ñaan yàlla bale ko ay ati ati at déwén ak yu jiitu maanaam def nañ ko mel na ni am mel mel na ni am na fukki at at benn loolu nag sant yàlla la ñun ñëpp war ko sant ndax ñun ñii ku ñu miin xam ne ñu nag bale bi ñoo ànd ba suñ joon yàlla tey ñu ñaan yàlla nag yàgg koo fekke yàgg koo fekke yàgg a ànd ak di ko def ci barki Serigne di ko ñaanal fan gudd bu ànd ak wér di ko ñaanal bokki taalibe yëpp waaye dina xamal ne daal woote na woote boo xam ne nii njariñ laa ngi nii yiw waa ngi nii képp koo xam ne ni participer nga ci wala nga dugg ci wala nga fekke ko yal yàlla fay la te yàlla dina la fay ndax liggéey bi ku ne xam ne ne moom am nag pay moom nag wàcc na wax dëgg yàlla ñun taalibé ñoo ci des ak yiw rek la ñu bëggal yàlla na ko yàlla fay te dëgëral ko yokk wéram at bëpp jullit boo xam ne yéene nga ko ci barke Sëñ Tuubaa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di ziare it jëmm ju tedd ji yi nga xam ne moom la ñu seqal liggéeyab Serigne Touba bi muy Serigne Moustapha Mbacké Abbas di ko ñaanal suñu borom yàlla yàggal ko suñ kanam te wéral ko kàttanal ko si barke Cheikhul Khadim ñu fas yéene jëmin nag si ab liggéey boo xam ne mooy liggéeyal Serigne Touba muy liggéey poroxaan bi te li suñu borom waxoon ne wala Serigne Touba waxoon lan ko boppam ne suñu boroom day amut ay melo ndax bokk na si ay mbiram neexal liggéeyal ak naqaree liggéeyal daal di wax ne bokk na si neex liggéey gi saa boo koy liggéeyal du la ne kañ laa lay fay du la ne lii laa lay fay du la ne fii laa lay fay waaye nag bokk na sa neex a liggéeyal ga saa boo tamit fas yéenee ba di la fay du seen ndax yaa ngi fi wala nekkoo fi dalay fay rek daal di wax na fa nekkoon ne leen yéen ñii seeni waajur moo ko ñoo leen doon liggéeyal mu di leen fay ba mu leen gisatut mu di leen fay yéen bi mu leen gisatut it muy mu di leen fay léegi nag si loolu tax mbokki taalibe yépp fas yéenee dem liggéeyali Serigne Touba ni ko jëriñ doon waxe léegi si ndorteel mu nekkoon ndorteel lu sew waaye ñu dem ba jamono jii ñu toll nii ñu xayma ne dinañ am ñeen fukki bis incha allah ñeent fukki bis yooyu tamit fas yéene nekk si ay gox yoo xamante ni dafa fasante ko si biir Kaolack ñu fas yéene faa déparé déparé bu mag bi nag nekk fii si Passoir incha allah si kër sëñ Moustapha Mbacke Abbas fi la départ bu mag bi waaye incha allah am na beneen départ boo xam ne Mérina lañ koy defee waaye am na beneen départ boo xam ne tamit Saara lay déparé am beneen boo xam ne Médina Mbaba lañ koy defee. waaye am beneen départ boo xamante ni day nekk fii fi wetu yi muy arrêt Yaram amaat beneen départ boo xamante ni day nekk Tabangoy eh, si ginnaaw tuuti lycée bi am na départ boo xam ne foofu lay amee am beneen départ boo xamante ni tamit Ocass lay amee fa wetu Njóobeen fa fa guy ga am beneen départ boo xamante ni ñu ngi koy amale Bongre waaye am beneen départ boo xamante yi tamit Koutal lañ koy lañ koy amale amaat beneen départ boo xam ne si ba Sibassor lay lay déparé am beneen départ boo xamante ni garage Dakar lay déparé waaye nag buñ ne garage Dakar garage Dakar bu njëkk bi moo tax moo tax ñuy wax kon nag si loolu yi tamit départ yooyu nit ñi nga xamante ni ñoo si fas yéenee dugg ñu ngi siy woo mbooleem koo xamante ne nii liggéeyal Sëñ ñor na la moo xam nga dëkk kawlax wala dëkkoo Kaolack ak foo mën di dëkk ñu ngi siy woo mbooleem daayira yi nga xamante ni dañoo nekk Kaolack te liggéeyal Sëñ rek ñor leen ñu ngi leen di woo si bis boobu ñu ñëw képp ku nekk foo gën a jege si départ yooyu nga xam ne wax nañ ko mën nga faa mën nga faa duggee waaye tamit liggéey bi yemut Kaolack kese ndax international la moo tax ñu ngi si woo waa Ndakaaru yëpp di si woo waa Touba yëpp ak mboolem fépp foo xamante ni ab murit nekk na fa ñu ngi lay woo si bis bi nga ñëw ñu ànd liggéey li Sëñ Touba incha allah muy le 10 mars bu soobee yàlla ñëpp rek ñu ngi leen si woo bàyyi ñu kenn góor jigéen mag ndaw képp koo xamante ni mën ngaa bale ji rek. ñu ngi lay woo ci liggéey boobu di ñaan yàlla na suñu borom yàlla yóbbu ñu si ak jàmm ñu fekk ko tal ko si barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara tey jiital ci nuyo bi di ñaan Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi nga xam ne itam. mooy sunu jëwriñ ci dëkk bi sunu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ba naal yim am yéene liggéeyal sëriñ bi lépp sunu borom kàttanal ko ba mu def ci lu kawe njortam di nuyu mboolem bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ngi dégg sunu kàddu di eh, am mbégte bu baax ci dellu si gi ñu dellu si di leen fàttaliwaat liggéey bu mag bi nga xamante ne sunu borom defal nañu ko muy tawféex joo xam ne dañu ko tawféexale ñun waa Saalum gépp kon maa ngi ciy santaat yàlla muy mbale mi nga xam ne. moom lañ war a bale ji poroxaan dëkkub soxna eh, jaaretullah nga xam ne eh, damay wax ne tawféex ji mu doon ci ñun mooy ndax ak set kenn ku nekk xam na fi dayo bi mu am ci lislaam kon nag bu màggal gu toll ne màggalug soxna si amee nii mu demee ak nii ko sëriñ bi fonkooy ak nii nga xam ne noonu la fa bokk taalibe yi wuyu si gan ña la ñuy bari bëri bëri lépp suñ borom defal ñu tawféexe ñun ñu nekk ñi nga xam ne ñoo war a setal dëkk bi jëkk ñoom kon loolu ñun ci ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax a baax di ci woo mbooleem bokki taalibe yi di ci woo mbooleem jullit ñi ngir ñu ñëw teewe liggéey boobee ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ci biir loolu nag may soññee bu baax bokki taalibe ci képp koo xam ne yaa ngi natta dem ca bis boobee maa ngi lay maa ngi lay soññiwaat di la fàttali ne la képp kuy dem kat guerre da ngay yóbbaale eh, arme ndax mooy waral la nga la la la tax a jóg nga mën koo def te kenn ku nekk xam na ne buñ nee dañoo jóg ngir bale ji mbala dañoo jóg ngir satali kenn ku nekk war naa xam ne bale dana fa am solo lool. râteau dana fa am solo lool peel dana fa am solo lool jaasi ak lépp loo xamante ne ni ba ci ay burwet lépp loo xam ne rek war naa mën a jur ak set ci dëkk boobe rek ñu ngi sàkku ci mbokki taalibe yi ku ci ku ko am nanga ko indaale ku ko mën a fàggu itam fàggu ci lu ëpp liggéeyub kenn nit it nga fàggu ko ngir indaaleel ko mbokki taalibe yi nga xamante ne danañ dem ca bërëb ba ndax léegi jëwriñ yi wax nañ ne danañu dajale ñeen fukki biis ak lu ko topp ak yeneen oto yoo xam ne sax danañ dem ak yeneen départ yoo xam ne bàyyi ko wuñ kaw la waaye loolu la mbooloo mooy bëri bëri bëri yëpp itam su ñu demee te matériel na matériel ba toll rek noonu la mbooloo mi toll bu bu dee ñeen fukki biis itam te ñu yóbbu fukki bala it nañ jàpp ne fukki nit rek ñooy liggéey ñi ci des taxaw kon kenn ku ci nekk booy xëyee sa kër nanga indaaleel sa bopp matériel wala jumtuwaay bi nga xam ne leer na la soo àggee mën a dal ci liggéey ba boo àggee man caa nekk ndax kat wax dëgg yàlla eh, ni ñëpp dégg nañ ko Cheikh Moustapha di wax ne ren dafa bëgg poroxaan gépp ñu setal ko balaa balaa tàkkusaan a jot te loola nag takku laaj pësseef la laaj ak ak ak ak taxawaay bu ma sëkk kon maa ngi ciy soñ ñëpp di soññ itam waa comité d'organisation bi kenn ku ci nekk itam fa nga ci féete nga jàpp ci te gën ci ak góorgóorluwaat taxaw ca temm te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa la te loola moo di sag matt ci liggéey bi kon maa ngi eh, yemale foofu kàddu yi di wax rek ne eh, ñu ngi santaat yàlla baax di ñaanala Cheikh Moustapha suñu borom dolli ko kàttan ba yéene ji nga xam ne am na ko ak yaakaar ji nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaxa am ci moom ba eh, dénk bi moom it mu defal ñu taw féexi nun waa Kaolack mu jébbalaat ñu liggéey bi te mënoon a dem ci bokkam jox leen ko kon nu ngi koy ñaanal yàlla liggéey boobu yàlla na ci am ndam te ànd kook ñun kon ñu ngi yemale foofu suñuy kàddu di woo mbooleem jullit ñi rawatina waa dëkk bi rawatina bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk kenn ku nekk xam ne sa liggéey bopp la sa mbiri bopp ñëwatina ñun lii rek mooy sunu sas ci liggéey bi ñun ñëpp ñu bokk ko taxawu ba mat wa rahmatullahi wa barakatu waaw le 10 mars bii di ñëw la kenn ku ne xam ne itam sëñ Modou Fadel wax na ko départ bi mag bi mooy passoire ci rond point bi ak gox goxaan yi nga xam ne dafa faslantoo ci dëkk bi paas bi nag ñett téeméer la aller ak retour muy 1000 francs aller ak retour la ñuy demee Porokhane camion yi nag téeméer la itam aller ak retour kon ñoo ngi koy wax soññu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp di fàttaliwaat rek nag ndigal lii mu ngi bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké moom Cheikhul Khadim ndigal nag bi ñu koy jot ci 2008 la ko Cheikh Mamadou Mountakha teg ci loxoy sëñ Moussa Bass Mbacké mii ñu fegool kon ñoo ngi wax na mbokk jullit yëpp ak mbokk taalib yëpp na ñëpp waajandoo bis boobu bis boobu nag bisu njëkkante la waaye bis boobu bisub jëriñu la sept heures du matin nag la ñu fii ci Passoire sept heures képp koo xamante ne war ngaa dem ñoo ngi lay woo sept heures fu mu fekk waaye dañuy départ incha allahu rabbi kon sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu inna alladina ila sarsara xad xasadu ziyarati faraxu daarayni aw zara inna alladina ila sarsara xad xasadu ziyarati faraxu دارين أو زارا